tasawuf dafa am ay istilaaxaat yu ñuy jëfandikoo ay baat yu ñuy wax yoo xam ni la baat day firi bokkul ak lañ ci jublu ñu nag istilaaxaat yooyu nag suñu waxee jaayante ak mooy baat bi ñëw ci alquran ñëw ci sunna waaye am na yeneen baat yu koy tuddewaat yoo xam ne lépp ci jaayante la jëm ndax dañuy wax ahlu tasawuf léeg-léeg ñu tuddal bayaat jaayante léeg-léeg ñu ni ahsul ahdi mooy jàpp kóllëre léeg-léeg ñu ni ab taxkiim ñu tuddee ko taxkiim mooy may la ci sama loo àtte ci man jubboo naa ci léeg-léeg ñu tuddee ko imbaasul xirxal léeg-léeg ñu tuddee ko ab tariix maanaam axasul tariix jël naa ci yow tariix léeg-léeg ñu tuddee ko tasliimu nafs mooy jël naa sama bakkan jébbal na ko baat yooyu yëpp muy jébbaloo jël ko rek jaayante yëpp benn baat lay firi mooy jaayante rek lay firi kon baat yooyu nag lan lañ ci jublu maanaam bu ñu waxee tasliimu nafs jébbal nit ki sa bopp lan lañ ci jublu ndax dañ cee jublu. maanaa lu xamu yem fi baat bi tekk ci luuxa loolu lañ ci jublu am dafa am meneen maanaa moo xam ne baat bi ëmb na ko ñu ne am ah kay am na yeneen maanaa ak dalaatil yoo xam ni baat bi ëmb na yoo xam ni day junj di joxañ di tegtale wàllu yar ak tarbiya ñu ni kon baat bi suñu waxee jébbal naa sama bopp liñ ci namm ñu ci namm wàllu tarbiya ci wàllu yar wàllu suluuk wàllu soobu ci yoonu yàlla waaye ñu ngi <clears throat> gi nga xam ne moo jokkale sëriñ ak taalibe maanaam li leen relation bi nga xam ne moo jokkale sëriñ ak taalibe baax boobu loolu rek lay tekki mooy jaayante na maag yow wala jébbalu naa ci yow day tekki ni takkante na maag yow kóllëre goo xam ni am na sabab ak ay jubluwaay kon loolu mooy jëm ni jubluwaayu baat bi baat bi nag bari na sax lu muy tekki ci yeneen mahim ak yeneen masaahib mais bu dee masdaru aw suufa moom suñ waxee al baya rek ñi ngi ci nam mooy mooy liñ ci nam mooy lan mooy ibtidaa riba